tabarakallah salaamaaleykum ñu ngi nuyu waa Dak Médina ak mboolem seen téléspectatrice téléspectateur Dak Médina xam naa ne mawdu bi wala thème bi bokk liñ ci jublu rek mooy ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci ci jamono jii ñuy dund ñu jéem a jàngee ci mbir yi nga xamante ne daanaka mu ngi xew ci suñu réew tabarakallah mu doy mbir yoo xam ne yu doy waar la te benn bu ca nekk rek jaroon na taxaw taxaw seetlu tolloog at wala weer ñu ciy jàngat di ci nafat jubluñu te nag dara du politique du appartenance benn waaye dara jublu ñu ko ci ludut ñu defar suñu réew parce que li sëriñ bi di faral di wax bu bu bu fekkante ne nii téeméeri ngi euh, gas téeméer di suul du mos a am baax dara du mos a sotti fa tabaarkallaa loolu rek lañ ci jublu. adduna malheureusement moo toll foofu damay wax ne adduna bi loolaa doon jéem ci métaphore pour nga ngay jàngale société bi il faut que ça la la accessible accessible nit ñi daanaka dañ toll ko ci nekk xale baa ngi yor lu muy defee nii te loolu nga ko jàngal adduna. ma jangale ne aduna dafa melni jamono ji lido la ku juddu genn nga sa kaas boo amee six juddu nga boy gën di dox di gën di mais malheureusement amna ko xamanteni ni bëgg lu omé lim bëgg moy baré la wala mu japp la ci sa kaas légui nak li dimbali ci lolu pour ñu xam société bi ñu dund en équilibre ñu xam ne le maître de l'univers s'appelle Allah rabbus samawati wal ard mom mom mom aduna mom mom wa aduna luko sof jeex luko mom moy am nguur yàllaa koy joxe nit ta bëri pexe wala mu bëri ay ay doodaan wala ay schéma ba tax yàlla ni diw laay jox nguur mu jële ko ci loxoom ñi munta pexe def ay nguur bëri pexe ba yàlla ni du ma ko jox mu jox ko ko loolu nag buñ ko delloo woon ñëpp dund ko dinañ dund en équilibre en paix ñu bàyyi xel suñu diggante ak suñu borom ñu xam ni ay lañu ay ñoo wax ma indi ko ci benn métaphore ci maami Seydina Muhammad Abdul Mutalib dafa waxoon ni yàlla soo mayee fukk ba mu dem ba am fukk fàtte fàttelu ko yàlla ni ko gor ca wax ja la nga waxoon bàyyi ko xel kon doomu aadama ñu ne boo addoo na nga bàyyi xel ni nga lay bàyyi xel loolu daal mooy li nga mën nañ ci xel ñu ba ñu société bi

am kenn ku jóg fële muy lan moo lan lañu lan la ñu jubbante société bi mu ne la droiture moo ñu jub ak maandu ala adaalatu wala xistu foo fekk population bu redressé wu contre le dirigeant c'est-à-dire que boobu war na ginnaaw société bi wala défendrul cause bi taxoon ñu teg ko seen kanam fa am benn professeur en droit boo xam ne droit rek la doon jàngale mu ñëw ci cours bi avant mu joxe cours bi woo xool benn étudiant ni ko génnal classe bi waa ji génn classe bi mu toog ba yàgg le professeur mu ni yéen étudiants yi amu leen lu ngeen ma mën a laaj li ma def ci est-ce que noonu la ñu ne ko loolu loolu loolu tegaloo ko tegaloo ko ci njub déedéet mu ne ah d'accord li ma leen bëgg a jàngal mooy bu ngeen amee njiit mu def jubadi maanaam injuste ci kenn ngeen digéré ko bul xam qui sera le suivant après ko kan lay doon kon injustice bu taxawee nañ taxaw ni injustice c'est pas juste waaye lépp qu'on soit juste dans notre combat